jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk yi siifur m m TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a toppee la nga xam ne rek moo di ay xibaar jamono ji nag coow laa ne kurru ginnaaw Pawlish Mbaye mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nañ ko lool ci réew mi di Sénégal mu nekk nag ab comédien boo xam ne jàpp na ne kenn du ko présenté ci Sénégal moom nag Pawlish Mbaye jamono ji nag coow laa ne kurru ci digganteem ak ka nga xam ne rek moo di papaam di Ibou Faye moom nag papaam nag génn na addu ci mbirum Pawlish eh, Mbaye moomee nag di wax ne sax tuddul la nga xam ne rek moo di Pawlish nag la mu ko tuddee rek moo di Ablaye Faye santul Mbaye moomee nga xam ne moo di Pawlish nag yëkkati na ay kaddu fa nga xam ne rek moo di ca D6 TV ci émission bi nga xam ne rek mi ngi tudd confrontation eh, ginnaaw ba nga xamee ne rek dañ ko dalal moom Pawlish Mbaye nag mu yëkkati ay kaddu di wax ne rek papam boobee nag daf ko abandonné ba nga xamee ne rek dafa nekk xale daf ko bàyyi fële toppatoowu ko faalewu ko benn yoon ca maamam la nekkoon ba nekkee xale waaye nag ka nga xam ne moo di papaam boobee nag daan na génn nag weddi kàddu yu ni mel di wax ne rek ka nga xam ne rek moo di Pawlish Mbaye nag kenn defu ko dara moom Pawlish Mbaye nag xaalis moo ko daal di bewloo gannaaw ba nga xamee ne sax ma ngay takk soxna rek moom Pawlish Mbaye nag baayam boobee nag di Ibou Faye di wax ne rek yëgul benn yoon na sax Pawlish ma ngay takk soxna dafa yónni yeneen kilifa rek ñu ñaanal ko soxna te loolu nag jaaduwul benn yoon Pawlish Mbaye moomee nag jamono ji ki nga xam ne rek moo di baayam boobee nag daan nay mer lool ci la nga xam ne da koo def rek rek mu di rek takk soxna nag eh, yoon ginnaaw ba mu ko yëgee rek fi mu ko yëgee moo di ci internet bi la ko daal di jegee ka xam ne rek moo di baayam nag di Ibou Faye di wax ne rek la mu ko def nag da koo métti lool parce que nag ku eh, ngay ñaan rek moo di sa doom dem rek mën a takk soxna rek nga dem ñaanal ko soxna ba say rek dem waaye nag mu boot di ko fële woo mbokki jàmbur nag ñi koy ñaanal soxna loolu nag métti ko lool moom Ibou fay nag di bàyyi ci ka nga xam ne rek moo di Pawlish mbay di ab Ablaye Faye moomee nga xam ne jamono ji nag baayam daan nay fësal ne Euh, tuddul Pawlish Mbaye Ablaye Faye la ko daal di tuddee nag jamono ji xaalis moo ko daal di beewloo moo tax rek mu bàyyi fële ay mbokkam nag nekk ci lu ko neex waaye nag kenn defu ko dara moom Pawlish Mbaye